wajalilaayi maskani tuubaabaat misras mi abijaayi xayri manabaat bokk julli di bokk taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha alxalifatul aam li tariqatil muridiya xafidahu taala wa di ko jëme ci bokk taalibe murid yëpp nga xam ne ñoom la sañ jox digal sañ leen tere kàddu yi nag mi ngi koy jëmale ci bokki taalibe yi nga xam ne ñooy waa Touba ci kanam fii dëkk bi toll ak nawet bi bokk na ci yitte yi gën a jàmp mooy jàppale sëriñ bi ci lii xew ci dëkk bi mooy taataay ak lépp lu ñu mën ci wàllu assainissement bi ngir dem bi ak dëkk bi gànn yomb ci biir dëkk bi ci lool nag ci lañ xalaati xalaat yi nga xam ne def nañ ko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 moo tax sëriñ bi jox leen ci digal di ñaan itam bis bi buñ ci àggee muy juróom-ñett fan ci weer yi nga xam yi ñu jëm weer yu ñu nekk fas ko ci ne tàmbali ñëpp dem ànd ko ñoom sëriñ bi joxe ne digal bu bis ba ñu ñëw ànd ko ñoom soññaat bokk teel bi soññaat bokk julli képp koo xam ne nga lu baax te mën a eh, yëkkati saw ñaq wala sa alal def ko ci def ko ci ànd ko ñoom ba ni ko sëriñ bi bëgg moom te xam ne sëriñ Tuubaa na ko jëwree ñoom daa waxee rek Cheikh Ibrahima Fati danaa wax ne liggéey sëñ Tuubaa war na ñëpp te du wàcc kenn wax ne sëñ Tuubaa lépp lu mu bëgg dana am lu mu santaane it dana am. tubaa ci kanam moom mooy mbooloo mu ànd di di jëfandoo boole seen xol boole seen xalaat te lépp jëm ci sëñ bi. dëkk bi yëpp. da ngeen toog mën koo defal suñu bopp. kon dara doo bett ci lii ngeen def waaye nag teewul nag rëy na ci man ndax man yitte moom yitte moom dama ko yëmal wala dara te yitte rek la. yitte man yéemalu ma ko daal yitte rek lu sotti rek gannaaw gannaaw gannaaw dogal sa borom gannaaw yitte ko sottal yitte ji nag ma gis moom wax dëgg yàlla yitte ko mënut a weesu wajalilaayi maskani tubabat misras mi abi jaayi man abat